bonsoir à toutes à tous bonsoir chers téléspectateurs il y a seetaan li nga l'émission ne suñu émission Giacarlo, euh, chaque jeudi 21h euh, jusqu'à 23h euh, avec tout simplement chaîne télé mais tout simplement Oriental TV. Euh, man mi di wax yeen nak ma ngi tuddu DJ Hot wala Elage ku nek ci walu li nga xamantene moy euh, cameraman bi mi ngi tuddu Madou Kanté euh, mom mo ñu nekkal ci li nga xamantene moy walu technique bi diko bëggé diko ziar bax mom tamit di bëggé bu bax tamit képp ko xamantene rek yaangi sétane en live on direct fi ci Oriental TV ñi ngi lay ziar di la delo ci kol bu bax voilà bandirabe onondaro be nganda da woni émission meden biete de Jakarlo chaque jeudi à partir de 21h do Ender Oriental TV ami calminon ami juron ami jetton fi amin mbiyon tan euh, bisimilla moon e émission moɗon biyeteɗo jakarlo chaque jeudi uh, avant tout d' abord amin calmin no fewi gandanɗa wonɓe salon ngaji mum walla sah wonɓe gandanɗa woni uh, galleji mum ena daara yimɓe uh, surtout hono abdou sar to to leygal darussalam o salminama no fewi mi jiditani encore tamit uh, fidèle auditeur men biyeteɗo ceerno uh, ba jeya to to leygal mo gandanɗa biyeteɗo leygal uh, gurel guetɓe kankoni kadi o salminama no fewi o yama tan bisimilla mokko e émission meɗen biyeteɗo uh, jakarlo Ah, eɗen gandi tan ko chaque jeudi noon mais avant tan keɗen puɗɗo d' abord eɗen gandi sénégal ne perdi gandanɗa neɗɗo mo gandanɗa vraiment se ah, se mbi tan ah, papoubo diob hakkille men hucci e gandanɗa woni coupe du monde 2002 gandanɗa match contre france gandanɗa woni ouverture coupe du monde 2002 nde sans toute japon somo jumut club momo ubbon ɗi nga xamantene kanko udditi woni gandanɗa uh, Ah, bi mo gandanɗa woni coupe du monde ɓenno ɗo 2002 amin mbiya tan o uh, yalti aduna boyani uh, je pense que ko heccu atel hanki wonno walla semaine do rek o uh, yalti aduna amin wiyamo yalla yo allah yalla yafomo yo aljanna c'est un légendaire mo gandanɗa vraiment wadi hunde fop pour senegal kon donc eɗen mbawɗen tan ko donade mo yalla allah yurmo yalla yo allah harnumo aljanna juuɗe moƴƴe jaɓɓomo avant tan kedo gonɗa de gandi eden jeehe émission meden chaque fois jakarlo ni yaade consultant et en même temps et invité ji men hannoon invité ji koɗi Tato. on woni dj am walla mbiya amadou kanté e jowrin men nde sen gandanɗa kankon kadi kanko woni jowrin uh, daré soppe sérigne abdoukarim bakke borom makkari mal ahla kanko nde sen kanko de moye invité ji e jiditani hono kadi gandanɗa biyeteɗo kaw diaye uh, gonɗe e daira moussieur sidine walla moussieur sidat kanko de monɗo hande ɗo e émission men biyeteɗo jakarlo uh, kettude men gauche gawo noon ko dj club on goni consultant mo gandanɗa jakarlo ɗo e nder émission meɗen biyeteɗo jakarlo comme no haalirte ni tan avant tan keɗe goɗɗo e dokkat hono kaw waɗa présenté wu e émission meɗen biyeteɗo jakarlo uh, après mbawen huccide kadi e gandanɗa woni jowrin men ɗo e nder émission meɗen jakarlo no haalirte ni tan kaw a wiyama uh, bisimilla ma e nder émission jakarlo uh, on te dit tout simplement encore tabit bienvenue dans l'émission kaw bisimilla ma bon assalamu aleykum mi saminigol foof inde mum e yettode mum caggal mon caggal no yaafimami o mi yaafima onon foof miɗi salmina joodiɓe ɗo ɓe fof misalnya Sheikh cheikh be mi salmina amadou karam Usman, misalnya Andi an dj hol ballo kam invité o kante kanko ganduɗa kanko jeytelo o donc no mbiruɗa tan hande addi en ɗo ko émission ganduɗa ene waɗi important donc mi arasalminam machallah kawƴay euh, vraiment minen kadi min beltima e argal ma daa émission biyeteɗo du ɗo e nder oriental tv leegui nag dañi jox kaddu ki nga xamantene kokodi euh, suñu jawrin euh, fii ci Goudiry bokk nisan moom tamit ñi koy béggee bu baax di ko ziar baax moom tamit ku ci mel ni Cheikh Bey di la naan tamit bismillah ci biir émission bu tudd jakarlo nekk jawrin fii ci Goudiry bu daayira soppe Serigne Abdou Karim Mbacké borom makarimal axla jawrin ñi ngi lay naan bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di saarewaat bu baax di ñaan suñu kàddu fekk leen ci jàmm ci barke bi Cheikh Abdou suñu fàllu di nuyu Baye Maadou borom kër gi di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ndax lu baax moom daal laaj ak yaatal te moom wax dëgg yàlla mi ngi ko yaatal yàlla ko yàlla suñu borom gën a yokk tawféex ba fi mu bëgg a mu yegg fa suñu xel nag dafa. joxe ji suñ benn yaay bu gaañu barki démb rek day faatu barki sëñ Abdou Karim suñ xel yëpp duñ mos a jóg ci moom ñoo koy ñaanal yàlla suñ borom yëgal ko ci barki sëñ Abdou Karim barki suñ fàllu te ñun ñi fi ne yàlla suñ borom xiiruñu ci lu baax ñu def ñu dund bu barkeel ci barkeb laa ilaha illallah kon ñoo ngi nuyu ñëpp mbokki taaliba yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw salmi ne ma foofu ñu leen di chaarawaat baax nak bisimilah. ah merci beaucoup euh, Diorim. Euh, dañuy jox kàddu bi rek kooku di euh, Amadou Cartier mais DJ la en même temps fii ci Goudiry am ci ñu ngi lay bëggee tamit di la dalal jàmm ci biir émission jàkkaarloo bismillah mo Amadou Cartier. Ah, asalaamaaleykum. onopo mi salminema juurima jortoma an dj hoota noddi kam ɗo mi heewani arɗo noon kar machallah kono ko batte ma quoi ɗo mi weltima no feewi noon eyi jortma tawɗo kawen dije laf dije lafiyan kay weltare moore quoi eyi eh, donc kam hayata tan esko lawol quoi voilà hay yesso daɗani guiti comme no haalpulaar haaliri ni ah, e dokkat tan hono ci ah, Club gandanɗa kanko ni consultant Jakarlo il fait partie des consultants consultant Jakarlo nak dañu beuri mais xamna re inshallah ñeneen nak dañu xaw japp jàpp tuuti mais teewut ah, descend ci Club mom tamit il fait partie des gens qui yoo vraiment ils sont là pour le développement de Goudiry motax tax ndeysaan moom tamit ñu tan ko jël ko bok ci li nga xamantene moy consultant bu Jakarlo ñu ngi lay nan rek bienvenue yow tamit clap mais clap som nga masque de ah El Hadj merci maa ngi sant ñëpp di sant di nuyu Amadou Kanté nuyu Dioring nuyu Oumar Ndiaye waaw man yaakaar naa rek euh, sa émission bi émission bu bu am solo na parce que chaque fois yaa ngi invité nit ñi di débattre fii ay thèmes yu am solo waaw bon aussi euh, comme je pense que alors euh, si je suis là vous dee parce que da nga alors je profite de l'occasion donc euh, boo gisee ma sol masque parce que covid bi mi ngi mm-hmm. donc nous, ci école bi la ñu lycée chaque fois dañu sol masque ak élèves yi moo taxit temps yi bon vraiment euh, foo ñu gis ñu ngi commencé di solaat masque yi quoi loolu tax ma sol masque voilà.

Mbros woon xaalir seen itam ne pular Covid 19 dañu am feebar bi nga xamante ne coronavirus kon donc ah, yéen ñi ñi nga xamante ne a ngi dem ci ah, fu mbool a nekk kon donc foo leen mënta dem rek na ngeen yóbbaale li nga xamante ne mooy seen masque ah, pour ngeen mën protéger wu bon mi artatane tan xaalir seen ñaw biyeteɗo covid 19 woni coronavirus uh, fuɗɗima heɓtude doole e nder Senegal, kono donc bandiraɓe onon gandanɗa yahoɓe jeere walla yahoɓe gandanɗa to waɗi dental foof oɗon ñaaga so allah oɗon ñaaga saabu allah e nelaɗo moon mbattoɗon ko wayno max uji moon uh, coɗɗon juuɗe moon haalirten tan c' est à dire les mesures barrières mbaɗa ɗum respecté no feewi bon so ɗum ɓenni min garat tan directement e temmo gandanɗa woni euh, poɗɗo waɗede hannde disque uh, momin poti yewtude ɗo e nder oriental tv numéro kam maɗou uh, mo hollirona chaque fois uh, 77 200 69 29 18 sa waɗi ɗum tan mbawa wadde participé e émission biyeteɗo jakarlo mbawa addude miijoji ma mbawa hokkude gandanɗa kadi woni gandal ma darti wona tan komin joɗiɗo tan minen ah, ɓuuri gandal goɗɗe e goɗɗo nono ah, peut être ko allah Ah, waɗi feere min ngari ɗo hannde kon donc bon no haalirten tan jiɗɗo wadde participé émission e fof sa waɗi 77 209 29 18 a wawat wadde ah, bokke émission e annda kadi ngadda e miijoji ma kon donc min ngara tan e temo min jippin ɗon carrément e pular après min ngara kadi eko wayno ngandanɗa woni ah, kallamo olof kon donc bandiraɓe onon daro ɓe ngandanɗa émission jakarlo temo ko ni yaari woni hollu en jii hannde aduna mo ngannden o Eh, yimɓe mbatta respecté gandanɗa les parents ɓe mbatta respecté jinnaɓe ɓe en jii aduna mo gonɗen hannde ɗo a yiyat cukalel mo gandanɗa bamum jibin ɗon ene jodo sene halde bammo cikta ko giɗi mum uh, haaldata en jii hannde nganndanɗa kadi nganndanɗa vraiment sukaaɓe nganndanɗa encore uh, daña jawɗi mbaɗanta yummune e yatta ƴetta dokkoye ngan nganndanɗa goddo taw nganndanɗa vraiment ko yummune e bammum woni wal poti dañde d' abord so ngayni mbawa wonnade goddo uh, kono donc hannde tamo woni entre jinnaɗo e biddo ko ɗin yimɓe hannde kalata ɗo e jakarlo kono donc bandiraɓe haalpulare ɓe on nani no feewi e garat tan e gandanɗa woni olaf kono donc mbokka olaf yi yéen ñii di seetaan li nga xamante ne émission jàkkaarloo thème bi nii lay demee tey gis nañ tey euh, vraiment euh, diggante euh, li nga xamante ne mooy doom ak yaay wala papam Euh, nu euh, seen comportement nu muy mel ndaxte gis nañ tey ji ki nga xamante ne doom tamit euh, tey buy wax ak papam day mel ni moromam lay waxal wala buy wax ak yaayam day mel ni moromam lay waxal kon donc thème bi nii lay demee diggante li nga xamante ne say waajur ak li nga xamante ne mooy doom tey loolu la ñuy waxtaanee ndaxte àdduna bu ñu nekk tey jii nii nit ñi bu ñu wàccu tempérament bi tuuti rek dangay gis affaire yoo xamante ne lu jéggi dayoo la balaa ñuy sori d'abord dañuy jox ki nga xamante ne kàddu kooku di Kaaw njaay mu wax ne moye kaw min jinnomi ko garta ɗum e pular ah, wiidema tan kaw an ko woni jinnaɗo d' kaw e gandal ka cukalel mais je pense que <laughs> a foti andude d' abord exactement ko woni jinnaɗo jinnaɗo woni hollu kaw bisimilla ma kaw avant que ɗo ganda pour yimɓe ganda pular ça walama pular ça walama olof <laughs> ko woni jinnaɗo il faut que yimɓe ganda d'abord la différence entre jinnaɗo et ɓiɗɗo ko woni jinnaɗo kaw bon hélas comme no kaaliɗani tan innaɗo mom, kañum woni heddum ganndinɗa kanko woni e mawɗo ma anndinɗa kanko adduma e aduna donc so neɗɗo addima e aduna a foti andude kañum woni jinnaɗo maɗa donc jinnaɗo moom ala ɗum ɗo dal o ala horom dal par ce que kanko woni fof maɗa kanko tan wawi widema ya wat mbaɗa ya wat nga gacca donc comme no mbirami ni tan innaɗo moom ala ɗum ɗo waaw waajur moom ɗum morom waajur dañ koo war a fonk doom dafa war a fonk waajuram waajur nu mu mun mel doom da koo war a fonk parce que moom moo la indi si kaw suuf danga koo war respecte waaw Ah, kaw nee na moom loolu mooy gis-gisam loolu mooy waajur kon donc Diorin ah, dañuy ñëw ci yow ah, yow tamit nga tënkal ñu tuuti ci olof dañoo bëggoon xam lan mooy waajur Diorin loolu lañ bëggoon xam balaa ñuy dugg ci digg <laughs> digg digg waxtaan bi. bisimilah bisimilah. inna wali allah. bàyyi faal bisimilah nga def benn mandat. macha allah. la ilaha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 jërëjëf ñoo ngi jégalu ci temps bi sax ñu jël nii dañuy daa mënta ñàkk rek ndax li ñu fiy def nii day lu neex suñu borom mënuñu koo ñàkk ubbee ci baatub laa ilaha illallah ñoo ngi ñaan déglu na nga dégg te ku dégg na nga jëfe ci barke Karim mu te ku ci na taasuñu ci barke bi li nga wax moom hélas danañ ci gàttal lool ndaxte waajur moom ni ko olof ñaari waxee rek bitig la demal nga jëndi bala moo tëj ak gis nga Abdou Karim mu sëñ Fallou bitig nag moom boo demut jëndi bu tëjee yaakaar naa da ngay toog di xaar rek te yaajur moom yaakaar naa moo raw sax bitig bu tëj ne bitig bu tëj sax mën naa mu ubbiwaat kon nag ñun ñi yàlla dimbali ñu ñu nekk fi nekk suñu waajur yalla mën a dimbale yàlla ñu dollee dimbale bañ xam dëgg dëggi waajur te waajur moom yonente bi salaa salaam ni ko waxee nee na man yéemu naa ci ki yendoog yaayam ba ngoon jot amu ci lu mat lu ko dugal àjjana yendu nag te yàlla may ñu ñun ñu nekk ñoom ay yees waaye nag lépp man dama koy tënk ci ñàkk xamuk doomu aadama kon nag yàlla nañu dimbale ban xamaat suñuy waajur mooy lan ndax hélas mi sama xarit la xëy na daa am fu jaar ba naan sama xarit la wala maadu jenn teraanga ju ma defal te waajur yaakaar naa buy def dem yaakaar naa lim def ci yow moo ëpp teraanga jooju noonu ndax bu kenn demee ba di la xam ginnaaw yàlla ak say waajur la waaye nag loolu lépp réeru doomu aadama man laa ko jàppee ndax du bon waaye yal nañ yàlla suñu borom dolli ñoo gindi ban xam dëgg-dëgg waajur barke suñu Fallu Mbàkke ñoo ngi tuubaat di nuyu suñu président yi nag maa ngi jéggalu ci keroog ñàkk nuyoo gi ndaxte lii day am lu muy def bis nag tey dootu mën a rombati te joxuma la loxo kii la même chose sama waa ji la même chose kon maa ngi leen di waat bu baax xamal na leen ay mbokki taalibe leen ay mbokki dëkkandoo leen ay mbokki julli leen joxaan nañ leen loxowaat bu baax ñeme loolu lañ ñu suñ bopp ñu bokk liggéey te yàlla rek tax ndaxte fii dañu fay ñëw barki sëñ Fallou Mbacké mel ne lu fi dëkk sañ fee def loo xam ne ñi fi dëkk sax sañu ñu ko fee def kon ñoo ngi Tuubaa tey jégalu xam ne kër gi suñ kër la dëkk bi suñu dëkk la yàlla ñu fi yàgg te yàgg jàppante ci lu neex ñoo ngi tubaat baax macha allah amin jëwrin kontaan nañ ci yow trop xam naa moom euh, saam bi neex na trop dañ lay jox rek micro bi euh, et tamit nga présenté wu <laughs> asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbokki jullit yi yéen mbokki dëkkandoo yi yéen mbokki soppe yi ndongo lu lu suufee lu néew daraja muy seer ay sangam yu kawe yu tedd ñu ngi leen di siyaare bu baax ñëpp rek bàyyiwuñu kenn mbokki guddir yi ñëpp rek seen jàmm xeebu moo leen di leen nuyu ci Cheikh Abdul Karim Mbacke ibnu Cheikh Mamadou Fadilo borom booti bu réy bi wax dëgg yàlla sunu xool sedd na sunu xel dalati na ndax maam Cheikh Rafal dañu lu yees bu yàggee day yees te jikko mooy taaru doomu adama nit lu rafet rafet lu baax lu mu rafet rek ak nu ko mënti yàlla darañal te baaxal baaxul rafetul rek nekkul nit kon bu ngeen di wax ci loolu rek mhm. daanaka yërmande la te ubbi ko lu feex la yéen dañ leen war a fay ndax yéen dangeen bokk ci ñi defar àdduna ndax àdduna yàqu na ñii ñi réer nañ te dara waralu ko lu ñàkk xam seen valeur ndax li fi mag ñi bàyyi woon buñ demee ba mu saaw réer ndono lay matut kon nag yéen bu ngeen jógee di di di di réveiller conscience doomu aadama yi ci ñu joxat gëdd li fi woon kon gàcce ngalaama yéen ngeen jëf yàlla na yàlla fay fu ñuy dégg ay ay seen TV dafa dégg télé bu nekk ci àdduna kattan googu yàlla nañ ko suñu borom may ndax yéen kat bu ngeen màggee jiko ji rafet jikko ji baax lépp baax kon ñu duggee loolu jërë ngeen jëf masha allah waxtaan bi neex na euh, amadou joni kuccate ma anne kadi euh, ama kadi euh, en nani joni ndesan jowrini haala makko baɗɗo fayida ka comme no kaw ni tan mi arta tan e question o que mi pular ni ko hayre biddo woni wofonde sa yane jinnaɗo a fusat so jinna aɗa yiyanema a fusat donc amadou kanti ka cukalel annde kadi jinnam andude annde mbanna men firi seeɗa ko firti ɓiɗɗo e jinnaɗo eyyi eh, certes alaj mhm. ko kalla ko ko hunde wonde fayida hakkude jinnaɗo e ɓinguel mhm. neɗɗo kam awa heɓde ko ɓuuri jinnaɗe ma mhm. e aduna kono noon ala ko mbawnon wadde sona beltine jinnaɓe men ɗum woni solution o ɗum woni kadi hunde base o hay so neɗɗo wi huɓere huɓere nde ala fondation moƴƴani huɓere nde nde dartako so neɗɗo darima nde ko wayta c'est impossible kono noon jinnaɓeɓe noon eɗen poti hokkudeɓe respect o kono ko jogui ɗon fof